Galas bu sëñ aboobu baraka Modou Galas bu sunu xarit sunu soppee sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimu Axlaaq Modou Galas Mbaye ah bu sëñ Moutada bu sëriñ Fallu Modou Galas Mbaye bu kan bu maam Cheikh Oumy Mbacké kon Modou Galas Mbaye bu sëñ sunu soppee sunu xarit nga xamne kenn rek la ci wa keur serigne fallu di kenn rek ci nun koku nak moy kan serigne mutada mu sëriñ fàllu mbàkke kooku nag mooy sëriñam kon modou galas bismillah man fil maali المعالي wa ya ويا wa فؤادي dar maswa أبد لوجه الله سائركم أبغي به النيل ما أرجو بسم الإله مركب سيغ فدلمي وريا الله دلنو أي مقام يا الله قلبك أوه tey jii ma way fii sangu góor ñépp yàlla kooka di seet fallu kooka mag mooray mbir moo gën ñi njëkk ña gën ñi ñépp yàlla ku mel ni mu musu feeya mu ku doonu mi am te dootu am fii ji duniya wër na yàlla tey ma joy Seexuna ana soppey Sëriñ Falliye tey ma joy Seexuna ey ballu bër bani bees mboolem lu nekk ci duniya joy na yàlla muridi xaadiri ak Tijaan ñépp nga ñooy ak suuf si ka samaaw sëñ ndoxu mi yàlla ak ñeenti wi ak biddiw lépp nga ak dañi ak njanaaw yeeg njaay àll yàlla mboolem lu nekk ci dunya lépp lépp nga jooy lu nu xam ak lu nu xamul mbooleem lépp yàlla ma di la ñaan moo la way way wi di sàkku yi nga raw ci yàlla ak ci sëriñ zaam xarit key ma sant yàlla fekk addunay tukki ngi wax jub ju baax ñi ko ñu wax na ko moo déglu ko yàlla jiital Sëriñ Bamba ak bur yàlla moo rëy mbir mooy jiitu dunya ak raabaw yàlla ku sopp Sëriñ Fallu koy de tabbi jànna ku noonu baay ben way diinaali yàlla ni ko yàlla def ku mu neexul yaay ki reere yaa reere baay ben gala soo ni ko yàlla def ku mu neexul bokk di ñaanal sunu waajur yi alaji Ceerno ak Abdoul Aziz waaye di ñaanal gërëmi waaye di siyaar sama xarit nag sama soppe alaji Maawo Cissé jërëjëf jërëjëf bu ñu nee Mamadou bu Galas ba soxnaam mi ngi leen di nuyu concert jeunes yi Maroc Sénégal au CO seetaanuñu bisu Seydina Muhammad sallallahu alayhi bi nga xam ni tey lañ ko ubbi muy festival salaam ñoom ànd nañ ceeg ñun ñoo ngi leen di gërëm ñoo leen di sant lépp lu ñu yëngu mbaa lu ñu yëngal yàlla ci yàlla def barke bi hurmat Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku ne amin yàlla nga ci kii ñëw su ma nee Jamil rek xel yëpp day dem Jamil صلوا على النبي يا حبيبي على النبي يا حبيبي صلوا على النبي يا حبيبي صلوا على النبي يا حبيبي صلوا على النبي ليتني للحجاب بالغ ففي عيشي يا سعد سائر صلوا على النبي يا حبيبي صلوا على النبي يا حبيبي يا ليتني للعجاب بالغ ففي عيشي يا سعد سائر صلوا على النبي يا حبيبي صلوا على النبي يا حبيبي محمد سيد البرايا أفضل فرد في الخلق نبي صلوا على النبي يا حبيبي صلوا على النبي يا حبيبي هداه وكان من قبل ذاك فاضل يحظلامي بنور بدر في طيبة طيبين باسل يوم سلامي بنور بدر يوم سلامي بنور بدر انا صبي النتمي بالنور بدر يوم سلامي بنور بدر أصبي النبي دفل بنور بدر طلع البدر علينا من سرياتنا وبدر وجب شكر علينا مدح لله بدر أيها المبعوث فينا بدون بدر يتشارف المدينة مدينة بدون بدر يتشارف المدينة مدينة بدون بدر يتشارف المدينة مرحبا يا خير بدر ودعنا رأينا قد يا ودع سرور

طلع البدر علينا علينا علينا طلع البدر علينا باسم الداوي الجبير أصلك مولى الموالي رحمة للعالمين صرفت جنات عدن وعدد للمغتربين kuma sappal yonent bi defal ma kuma sappal yonent bi jógal taxaw ca kaw kuma sappal yonent bi jógal taxaw kuma sappal yonent bi jógal taxaw loxoy loxoy loxoy naata bi xil بدور المقتدي إلهي جارتي الخير تجور من شر الخرين ندعنا المصطفى من حبيبا ليغفر لي غفور بيوم ديني ويوم خمترير زمهرير عبوش شر وصفنا مهيني إلهي يا إلهي توبة أنا صبي سيد الحاج مالك قد إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة حبيبي سكنا الخطرات في الخيرات وما تهم وما استزلت كما والخطرات في الخيرات وما تهم ما شاء الله تاكلوا لكم بخبا يا إلهي كنت أنا li nga doon dee ci bés mat na set bég nañu kontaan nañu macha allah di ndokkeel nag bu baax sëriñ Maodo si ak sunu sang sunu xarit soxna Tabara ñu ngi ko ndokkeel bu baax a baax jërëjëf kontaan nañu yaay jëli léegi nag ñu jëm nag ci kan ah mbooloo bi festival ya salaam tey nan la tàmbali mu yemoog le 15 nu waree ànd ak yéen ba le mu nekk bés xam ne bi bëgg rek ngeen kontaan ñu ànd ak yéen tamit ci weeru koor gi nag ci kan ci taalibe Cheikh Al Khalifa xayatu ci kii nu jëm kooku nag mooy Ndiol Waka ah à l'âge de ki lañ ko takkal meetal waaye yàqu ko de boo nee ko koo bëgg mu ne Cheikh na Cheikh Sall bu nekk laa bëgg boo dee koo sopp mu ne Cheikh Al Khalifa borom gëlëm gi laa sopp kon Dior Wakaam yow nag tubaarkàlla yow la ñuy xaar bisimilah Dior Wakaam Nabil. 我奶奶。 atheism huwa jërëjëf jërëjëfati lañ lay wax waaye ñoo ngi ñaan yàlla guddal sa fan waaye dañ fee doloon Cheikh na Cheikh Saad bu naan taan yow lay doore Cheikh na yow lay diin Cheikh Saad bu waaye mënuñu ko fee doon ba beneen yoon insha allah ñoo yow du jeex mbooloo mi

yurmati rasul sallallahu alayhi wa sallam ki ñëw mooy doomu ruuwu sëñ Abdou Karim Mbacke